ba organiser làmb loolu laa doon xaar mais toog leen xaar ba mbas mi jóge fi ñun xaaruñu woon loolu li doon xaar mooy bu promoteur jëlee war a mat sans gémi wala ay gendarme état bi dollil ko ci lu toll noonu ñu respecté mesure barrières yi xale bu ne ñu wàcce la ku nangu la takk masque ñu wàcce la pour mën a organiser mais discipline yëpp di yëngu làmb ñu bàyyi leen depuis fin mars ca at mi ñu génn lañu ñu arrêté làmb te ñoom kenn ku ci ne am na ci looy yëngu weeru dee nga faj say soxla ma ne waa làmb ñoom def nan euh, beneen bi ma ne feebar boo xam ne bu dalee dañ lay woone la feebar nga boobu feebar donte feebar la werante amu ci warta tax ñu war a bàyyi liggéey nag ndax liggéey jaamu yàlla te xale yi lii lañ yaakaar pour suturlu ci looloo taxoon ma ne li ñu doon xaar ci état bi mooy ñu respecter mesure barrière yi xool nan la ñuy def ba respecter làmb ji ku ko boycotté ñu dal ci sa kaw ku ci respecté wul mu am cahier de charge mais toog ne nañu xaar saison bi bu tëjaatee dina métti beneen bi ñu sóor promoteurs yi nga xam ne ay privé lañ te ay bailleurs investir seen xaalis pleine saison ñu arrêté ko ñu am gëm yàlla tëggaat te seen xaalis mënoon nañ ko defaat def feneen ko ñooñu dama ne war nañ leen a bàyyi xel au moins làmb ji mën a mën a mën a organ mën a continuer. non non man ci loolu laay dox ministre des sports bi ma ne bi ñuy fal sama xel daa fattoon boole nañ la ci conseil ci personne ressource yi. dama ko ne même boo ma falutoon du tey man ma jàppale làmb ndax làmb laay dund dama yore ay écurie di manager di directeur technique kon man làmb bañ a am bëgguma ko dama njaboote ay xale ñoom Siteu Papa Sow ñu mel ni ñoom nañuy def jël avance avance yi leen fi téye ñu war a libéré wu dem witi leneen am yeneen yi combat yu taxaw dama ne promoteurs yi la war a jàppale ay privé la ñu nga jël sa xaalis joxe saison bi arrêté nga am gëm yàlla joxewaat mais bu ñu toppee naan feebar mais su melee ni siburu mais du fi jóge kon lamb ji du am parce que feebar feebar la rek même feebar sax jaam la suñu borom a koy tege ku matal rek dem feebar yàllaa koy yor moo yor wér moo yor dee du tax nag nga dem soobu ji feebar ji mais li ñu doon xaar ci état bi mooy mesure euh, li ñu doon xaar ci ñoom mesure barrière ñu respecté ko commission heure bi damaa xalaatoon ne commission médical bi ñu ngi dajaloo xoor nan lañu war a fexe ba làmb ji am mais toog leen xaar feebar fi jóge fi bu fi jógewee lu ñuy def léegi ñoom waa làmb ñoom jàpp ci lan te ñu la koy tere ñoom weeru dee ñu fay yóbbu seen kër kon jubluwuma ci pour ñu naan diwo am xam-xam ak nangam nangam man maay avocat làmb mbër yi dañ leen a jaboote te su ma sañoon man ku takk ngemb jariñu te làmb nag li ci ginnaawam dafa yaatu ñoo xam ne dañuy yaakaar làmb di ci tedd bu ñu amee combat dañuy jëndi nag dañuy sarax dañuy saraxe bu làmb amee feet lay doon bu njëkk ba sept écuries ngay wax tey bu ñu demee cent soixante quelques écuries kon moo lay wane nawetaan yi mel la écurie mel ñu bëri yaakaar làmb te koo wax mu ne naa bëgg a teral samay way jur waaye léegi ñooñu def nan te moo ne am nañ gëm yàlla bi ñu arrêté euh, saison bi no bi bi ñu wootee dañoo dem yëkkati seen stour yóbbu ko ministre yóbbu ko ministère pour wane ne feebar ñoo ko war a ñoo ñun ñëpp ci war a ànd mais nag bu ñu ubbee ay boîte de nuit di tëgg marché yi fees boo saanee mbattu moo tax làmb ñi nga xam ne temps bu gàtt lañ fay def rek ñibbi ñu ne ñu ne xaar leen xaar ba at ju la fi xaar doole ju du la fi xaar làmb problème mu temps la te saison bi saison bu gàtt lay doon koor gaa ngi ci biir lépp a ngi ci biir bu dul loolu mbër yi ku la ko wax ak ku la ko waxul loolu li ñuy dund métti na waxuma nag promoteurs yi promoteurs yi nag gàcce ngaa la ma ndax seen xaalis mënoon nañu ko dugal feneen te lii ñuy def état la waroon ndax ñoo war a wital ndaw yi liggéey moo tax li fi euh, mbay yëkki ni wax dañuy ne ci ginnaaw wax ji tegginu na mais dëgg la nag dëgg yàllaa ko moom wa wañaaruñu loxo kenn xeexloowuñu kenn mais jot na pour ñu bàyyi xel ah su su mbër yi siiw waxu ak ñi siiwul bu na àndoon ak seen njaboot ak seen fan su kële bi jóg ne dina màtt sama naa jur leneen de mbott sax bu sësee màtt jërë ngeen jëf. waaw làmb toog na depuis neuf mois amul combat amul programme parce que décision bu njëkk a wàcc c'était le samedi 14 mars 2019 euh, ñu doon xaar ay combat yi am solo ci làmb. Euh, ñu doon jooy nag ay combat VIP parce que boobu seul Papa Sow moo taxawoon comme combat ñu jaaxle woon ci loolu yaakaaroon ni état dina gën a dooleel làmb dooleel promoteurs yi pour ñu mën a am moyen tëgg ay combat yi am solo loolu amul lii ñoo daw dal suñu kaw ñu nangu ko l'arène en tant que tel moom moo njëkk a mobiliser wu dem jàppale ji état ci wàllum promoteurs yi ñoom ñoo njëkk a def cotisation génnee un montant fort jëbal ko le ministre de la santé ci kanamu ministre Matar Ba loolu exemple la woon buy wane ni nu sommes des patriotes ñi nga xamante ñu ñoo nekk ci làmb exemple fort la quelque que soit montant bu nekkoon ci enveloppe bi loolu lu am solo ah, solo la quel que soit lu ñu mobiliser woon ci ay produits euh, pour xeex feebar bi loolu wane na ni làmb euh, nekk na fi. pour le pays pour développer la lutte sénégalaise euh, Mbaye ni wax na sànq li am solo euh, ministre le président de la république li ko war moom mooy fexe ba jeunesse bi am emploi parce que loolu euh, problème na ci ñoom parce que jeunesse bi dafa bëri la population sénégalaise est plus jeunes que vieille donc bu fekkente ni dem nañu ba promoteur yooyu nde doon ay privé jëli seeni moyen personnel engagé ay lutteurs qui sont devenus des professionnels donc làmb seen métier professionnel la ñu wër jox leen euh, de l'emploi ça veut dire que ñu ngi jouer quelque part rôle bi nga xamante ni état moo ko war a jouer donc làmb dafa jar ñi bàyyi ko xel il faut pas que Macky ak ak ses services jàpp ni làmb tabaxal nañ ko arène nationale à coût de 32 milliards que defal nañ ko lépp li nga xamante ni moom la soxloon déedéet da ngay am infrastructure qui coûte 32 milliards nga accompagner le monde de la lutte si yeneen fànn loolu la ñuy xaar ci état ñun axlu làmb euh, am nañ déception te xamuñu fu ñu koy jooyee parce que on n'a pas encore la chance tey taxaw ak le président de la république recevoir axlu làmb en audience te pourtant jour bu mu doon joxee remise clé arène national au président Macky am na ñu fi taxawoon ay promoteurs pour bëgg Macky Sall recevoir leen audience jusqu'à présent le président de la République n'a nullement jamais reçu les acteurs de la lutte pourtant le président Abdoulaye Wade recevoir na toutes les composantes de l'arène muy mbër avec frappe euh, en activité les anciennes gloires et cetera jàppale leen doole leen ci côté alal pare woon pour ubbil leen milliard bi coûté ay milliards euh, mutuelle bi coûté ay milliards ba mu jógee fi donc le président Macky Sall bul jàpp ni euh, may nga ñu arène national à coût de 32 milliards que defal nga ñu ñëpp lu des ci làmb moo ëpp li nga xamante ni moom nga ñu defal donc côté boobu vraiment tient à ce que message boobu jàll que làmb dafa nekk dans des situation inquiétantes yi nga xamante Euh, bu si état bu ko état accompagné wul loolu dérive la wala état manqué na benn rôle bi nga xamante ni war la mën a te loolu ñu ngi si interpeller les autorités en charge du sport notamment le ministre des sport Matar Ba qui ne se ni defal nañu làmb li nga xamante ni moom la ñu doon xaar làmb am na arène nationale mais mu ngi jooy amuñu lu ñuy fu ñu lu ñuy ndekkee amuñu lu ñuy añee amuñu lu ñuy reere Donc c'est à l'État de prendre une prise en compte, euh, une prise de conscience par rapport à cette situation de l'arène. Nous obligons sur les sports. ubbil ñu suñuy suñuy suñuy suñuy stade ñu tëgg suñuy combat parce que rien n'est impossible dans ce monde la les promoteurs dañuy investir ay millions ci seen seeni combat bu fekkente ni ils sont dans l'incapacité de récupérer xaalis bi nga xamante ni moom la ñuy verser incapacité d'investir dans l'arène la faute c'est à l'État l'État sénégalais nag ka regarder li nga xamante ni ak lu làmb ñu ngi koy dund actuellement. Euh, Bira Sène euh, le nouveau président du CNG ak ay première PAM est que dal na xel. Euh, Bira ñu ngi koy féliciter si le fait que ñu nommé ko en tant que président du CNG jotoon naa ko xam bien avant ñu nommé ko jàppale naa ko si liggéey bi nga xamante ni moom la doon def. te dafa dën dëggante ak man donc mësuma xalaat ni effectivement dinañ ko nommer président du CNG parce que à trois jours bu ñuy génnee liste officielle am na ku ma ne Bira xam est-ce que xam nga ni Bira Sène lañ bëgg jox dënk CNG ma ne ko non duma ko bind parce que musuma ko xalaat ni Bira Sène dinañ ko jox le CNG bëgguma woon yàq sama crédibilité parce que bëgg naa saa yu may génnee information même su da fekkente ni damay juum ma juum si li nga xamante ni c'est logique mais buñ ko falee comme président xëy na état am na yaakaar que ni dina mën a indi dara mais si première mesure yi Bira seen posé avec son équipe ay mesures yi salutaires lañ xam nga lu tax parce que ak làmb lu ñuy reproché à l'équipe sortante bi nga xam ne Alioune Sarr moo ko doon jiite mooy que euh, bàyyiloon xel bu baax ak lu làmb lu ko doon wax Bira Sène dafa ñëw récupérer tous les problèmes de ren mu jéem a indi ay solution donc ñu ngi koy ñu ngi koy félicité ci loolu docteur Alioune Sarr nee na euh, bu ñuy apprécier bu ñuy juger nit bu ñu ko juger ci ay préjugés nañ ko juger ci ay actes yi muy posé donc quel que soit le Birasène qui a géré le CRG de de Kaolack bu dee def na fa lu baax wala def fa lu baax ñun xooluñu loolu lu ñuy xool mooy lu muy posé en tant que nouveau président du CRG te ñu ngi koy observer que Bira ak équipe xam ni ñu ngi koy bàyyi xel en tant que observateur en tant que journaliste ñun sax suñu position ñu bëri comprendre au CNG pourquoi ñun suñu làmb ñu toog di leen xel mosuñu leen critiquer pour le moment nit mënul ñëw doog a ñëw nga koy sànni xeer di ko critiquer ñu ngi leen di bàyyi xel di leen suivre bu defee li nga xamante ni moom la ñuy xaar ci ñoom on va les apprécier, applaudir des deux mains. Mais jour où nous jouons, nous serons les premiers à les critiquer. Critique bu gën a sévère nañ ko xaar si ñun bu fekkente ni def nañu li nga xamante ne waruñu ko def donc si logique boobu lañ nekk di ñaan yàlla ñi aboutir ñi remplir seen mission avec honneur avec objectivité ak aussi avec engagement parce que loolu la ñuy xaar si ñoom. waa euh, yaa ngi may may occasion di ñëw si sunu làmb d'or dañ koy organiser samedi décembre jardin publique de Rufisque Tengej écurie Kay Baax moo ko gagné ren avec 18 combats 15 victoires 3 défaites euh, la saison sportive bi passée dafa courte de mois, mois du mars a à euh, de, du mois novembre de novembre au mois de mars donc presque cinq mois la boo amee écurie bu dem di bëri ay 18 combats ça veut dire que encadrement bi am na si rôle bi mu joué pour que ces poulains ñu luy seen objectif loolu la fexe ba mbëri bëri quel que soit écurie bu ndaw ou écurie bu mag ba pare les lutteurs ki ngeen di engagé ñu fexe bi am ay ndam defal leen sargal ñi am visibilité dina tax ëllëg dinay génn liggéey pour mën a gagner la sunu làmb ren nag fas yéene nañ ko innover dugal ci lutteur sans frappe ak lutteur avec frappe mu ngi en projet pour le ñu ngi koy étudier saisir nañu toutes les composantes de la ren pour ñu bokk ci ci choix en même temps ñi définir avec nous li nga xamante ni moom mooy les critères Euh, su ñu amee les moyen qu'il faut dinañ leen sargal parce que si loolu la ñu nekk sargal bi ça doit être par titre euh, euh, distinctif moom mooy tax vraiment ñu gën a góorgóorlu. Mhm. am na cinq yi dafa xaw a critique mhm. parce que ku nekk ñi wax nañ ñi ñeneen ñi et cetera am nañu ay liste ñu recevoir pour leen les nominer mais c'est encore un compliqué par exemple Franc il a participé à quatre gala mu gagné trois mais gala yi muy gagné mu gagné mu perte benn euh, gala yi muy perte euh, boo xoolee gala intéressant la galas yi mu gagné ordinateur mu ngi def treize combats treize gala bi mu gagné ci àll ba mais boo xoolee dayoo yi ñoo bokkul dimension yi ñoo bokkul boo ko joxee nga privé franc wala privé Serigne Ndiaye 2 day am lu muy niroo donc ñi ngi analyser critère objectif yi nga xamante buñ ko tegee dañuy xam ni vraiment li jaadu na. jàmm ji